wajjahtu wajhi liman takrimu yaa وكم من الأنبياء ridwaan المهنئ يا Amiin

Thank you.

yaa

ما عندما والذهاب بما يغفى

Thank you.